am nañ li xew dàqu leen ko jàng gën leen koo xam waaye dañoo am dañoo am kilifa surtout am na loo xam bi ñu tàggu suñu kilifa nag ñoo koy fayal suñu bopp ñàkkuñu fay na ragaloo ñu te xam nañu réew mi dañu te ñu lu neex nag kon un TPC ku ma tudde ngeen baal ma sax dama ko tudde tur ñu ko tudde sax mérité wu ko dama na bay dañ koy wax am am sax mérité wu dañ koy wax dañ koy wax dañ koy wax cumbur puróñ kuti cumbur puróñ kuti la waaw bu doon mbaam sax mbaam day am njariñ mbaam day am ndax mbaam mën nañ ko sëf ba mën ko def sare ba mën ko béy mais ak cumbur amul njëriñ waaw dugal lekk ak génne lekk rek lay liggéey produit la mën nañ ko jaay boo da dépassé woon xel dexu def jaay ko waaw waaw dexu gànnaar gi boo dépassé woon def jaay ko te te it te it ku ci mu tëdd la ci cum euh, waaw waaw waaw cumbur la ndax ndax cumbur mënta sëf mënta jaay mënta mënta bay puruñ as puruñ la si puruñ dañ koy jaay amul njëriñ mais puruñ amul njëriñ la parce que mënta wax ay ay ay bëtam baaxut aw làmmiñam léegi mënul dara mënut a sàmm gële mënut a sàmm mënut a sàmm ay xar bu dee amul njëriñ askute la itam dafa doon xaj man mën nga koy def mu lay gardeel mbaa mu lay mbaa mu lay am na fidélité mais askute moom amul njëriñ dugal lekk ak ak génn lekk la jëriñ te te mën nañoo weesu si nag lii ñu wax mën nañu ko weesu ndax xam nañu ne xew si ci réew mi lañ ko ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp nag